li waral ndaje bi que euh, un programme bi ONG 3D ak partenaire Oxfam ak yenen organisation de la société civile du Sénégal di tëral si ay zones yi nga xamante euh muna lim zone Rufisque Sendou Barni ak aussi yenn am euh, programme bi dañuy euh, amee ay cadre de participation cadre de participation yi boo déggee mooy ay kuréelu citoyens yu ñu jël former len si euh, les li nga xamante moi citoyenneté li euh, droit jox comme ak ak élève euh, li leen li droit jox comme ak ak comme ça nous ñu mën a dund participer si citoyen si société bi léegi nag tey dafa am benn formation bu ñu encore sur les droits humains

bu fekkee dafa euh, demeewul noonu si yoon ñoom dinañ xam ne am nañ droit boobu noonu te bu boobaa dinañ def li si war. bii ñu war ñu defal nag tey si àq ak yelleef bi nga xamante ne nit ñi dañ ko am waaw si wàllu extraction minière muy euh, usines yooyu xamante ne tey si wàllu mine la ñu yëngu ñu gis ne nag si département Tëngéej bi dañu fi am ñaar. yo xamantene benn bi muy beneen bi euh, pétrole bi nga offshore profond ñu koy bëgg commencé di exploiter. bo tax ne département bi waa ak euh, sunu naataangoo yi nga xamantene ñoo jóge ak ñun ñi ak euh, Sendou ak yenn ñun ñu waxtaan ñu wax sunu ak sunu si fi maanaam loolu mel ni ay euh, exploitation minière